waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna mbokki Africa mbokki diaspora ñëpp maa ngi leen ziar waaw malachon, maa ngi lay ngi lay ziar di leen euh, di massa di leen massawu coono li xew Sénégal mi ngi wër àdduna te tamit metti te tamit metti na ñëpp quoi mais dama bëgg ñu xam dama bëgg ñu xam ne amul ragal amul amul teggi tànk waaw amul ragal amul teggi tànk Fini, fini fini ñu tollu fi lañu wara gëna accélérer waruñu bàyyi waruñu dara on doit tout démolir dans ce pays pour recommencer à zéro dégager dégager tous ces hommes tout ce régime parce que il faut y mettre le il faut y mettre le prix waaw peuple yi ngay gis peuple yi ngay gis ci aduna bi ñu épanouir yépp tay ji yépp tay ji ils ont versé ils ont versé de leur sang États-Unis euh, Chine Allemagne euh, Allemagne bi France bati ah, ah, euh, France bi liberté égalité fraternelle c'est parce que dafa asseoir république la motax mo la république le peuple français a souffert a souffert le peuple français était oppressé par le roi le peuple français a tué son roi a tué son roi ñun lan lañ defagul ñun lan lañ defagul bi Sénégal di Sénégal batay ay ben benn nit ay benn benn nit ñom ñoy ñom ñoy sacrifier l'oppresseur ñu jël anéantir len sen histoire yam histoire yam mais il n'a il n'y a jamais eu un engagement citoyen un engagement citoyen bo dafa homogène un engagement citoyen bo dafa durable bon il est temps bon il est temps il est temps ñep génn génn est génn ci est ñep génn est temps, il dañuy temps, il est di di di leen dañuy ay ay yu set di ni ñu def Soumiko ko ba Ousmane Sonko tamit président Ousmane Sonko tamit paraît-il que amne vidéo yu wara guen yo xamanteni ñom ñoko monter je sais pas dañ ko drogué ay yu demee non pour jouer pour jouer ci conscience op opinion bi qu'on ne nous laisse pas qu'on qu'on ne nous qu'on ne nous laisse pas manipuler ñep ñep ñëpp dañu war a génn ñëpp dañu ñëpp war a génn ñu ñu delloo jukkal la Serigne Touba doon xeex El Malick doon xeex aliénation bi la Cheikh Anta Diop la Cheikh Anta Diop doon xeex parce que tous ces combats o avaient un seul but boo xamante ni mooy mooy mooy ñu am suñu souveraineté peuple bi peuple bi moom boppam mais ba léegi Sénégal mënul boobu moom mënul moom moom mënul moom boppam on a dit un peuple un but une foi Tayla la refuse a firéeku ni la am un peuple musuñu du am benn but musuñu am benn foi parce que si ba ñaari Sénégal moo am ñaari Sénégal moi am ku nekk ku nekk ci nguur gi ak ak ak ak qui koo xamante qui donne opulence nous am benn but parce que si pourquoi déléguer pourquoi déléguer le combat Nous am benn foi parce que en fait c'est euh, euh, euh, c'est la foi qui qui motive les combats Nous avons am combat homogène dama un député au Sénégal, il trois jours trois jours successifs amul instant ils sont à à court de réserve motax motax le combat bi wara intensifier on doit tout on doit tout démolir Ligne ñuy institutions ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur ministère de la santé ministère de la défense ministère des des infrastructures ministère de l'économie ministère on doit tout démolir que dañu war recommencer à zéro à zéro zéro zéro zéro zéro zéro table table table table rase Nous ne nañ fi bàyyi suñu kër yi rek suñu suñu kër yi rek ak yére yi ak yére yi ñuy sol mais lépp loo xamante ni dañ ko lépp loo xamante dañ ko pour jëmmal état wala pour jëmmal pour jëmmal nation ba ci drapeau bi on doit le brûler on doit le brûler on on doit refaire notre histoire on doit refaire notre histoire de, Marting, de martyr parce que parce que te ala tu es di nga te li pour sa askan da nga pour askan da pour sa bop, pour pour pour libérer pour libérer ce peuple

mais on doit tout refaire tout on doit tout refaire dans ce pays on doit eh, filmer ni ne ni bu fi mu ne ni bu le peuple sénégalais est un peuple pacifique est un peuple pacifique dañuy que lu gën pirate parce que le pouvoir le pouvoir rend fou le pouvoir rend fou donc on doit tout démolir et et et et et et tout le